bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ ma Mouhamadou Mansour Sy Dabakh mi kilifa jataay bi njiite njabootu Seydi Aji Malick si représenté xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour yow ak sa ay rak ak sa ay doom maa ngi yëkkati nuyu nuyoo bi gën a tedd nuyoo bi gën a sell bàyyeekoo ca ci son excellence monsieur le président de la république Macky Sall di ko teg ci sa loxo ngir nga jotal ko ko Serigne Babacar Sy Mansour maa ngi ànd bi may ñëw président yabal ñu ak délégation bi ñu lim léegi ñu ràññee ci ministre bi président dénk wàllu dem bi ak dikk bi waaye tamit moom la dénk wàllu tabax di infrastructure muy Mouhamadou masur Faye ànd na ci délégation bi tamit ministre bi yool wàllu artisanat ak transformation secteur informel muy Pape Amadou Ndiaye ministre Pape Sagna Mbaye bi yor wàllu napp bi ministre au auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile mu di Biram Faye waaye ñi ngi ànd tamit ak secrétaire général adjoint bu gouvernement bi muy ba Badara Diop mu bokk ci kër gi ànd ak ministre conseiller auprès du président de la République Bamba fal nekk maire Médina ministre yooyu yëpp bi ñu ñëwee teeru nañ ci région bi le gouverneur ba dara Mbengue ànd ak préfet ànd ak sous waaye fekk ci biir dëkk bi présidente conseil départemental Seynabou Gaye Touré maire Tivaouane Demba Diop Sy dalal ñu bi ñu jugee bay ñëw président wax nañu ni nañu ndokkeel sëriñ bi ci bis bu màgg bi bis bu tedd bi ñëwoon na fi keroog waxal ko boppam waaye bi gàmmu gi ñëwee tamit ci bis bi nga xamante ni moo dëppook moom mu yabalaat ñu ndax yitte ju kawe waaye ni mu téye Tiwaawan ak li dox diggam ak sëriñ bi ak njabootu Seydi Aji Malick si yépp mi ngi ndokkeel sëriñ bi mi ngi koy ziyaara mi ngi ñu wax tamit ñu bokk ak yenn bis bi ci lépp sëriñ Moustapha fàttali na ko léegi bi gàmmu gi jibee jubee dafa ñu jox ndigal ci ñu ànd liggéey ak comité d'organisation bi ci lépp lu soxal organisation bi moo tax service su état bi li jëm ci wàllu courant li jëm ci wàllu ndox li jëm ci wàllu assainissement li jëm ci wàllu dem beeg dikk bi waaye bépp domaine bu ajoo état bi dugal ci loxoom ngir ñu mën a taxaw ak comité d'organisation bi ba lépp yemb loolu moo doon ndigal li te ànd nañ ko ak ñoom sëriñ Moustapha ñoom sëriñ Habib ak seen ay rak may nuyu tamit corps diplomatique bi fi teewal seen ay réew te léegi suñu frère ambassadeuru Maroc ci Sénégal jël kàddu ñuy profito ci occasion bi di leen jaalewaat ak di leen massawuwaat li xewoon fan yi weesu Maroc te ku ne xam na diggante Maroc ak Sénégal ku ne xam na diggante Fès ak Tivaouane ku ne xam na diggante président de la République son excellence Macky Sall ak le roi Mohamed VI di massawu tamit suñu mbokk libyens yi ndax gis nañ leen ci délégation bi ci xew-xew bi fa amoon léegi waaye sëriñ Moustapha bi ma duggisee léegi dafa ma wax ni euh, am na horaire bu ñu tënkoon ma ni ko am na xew-xew bu ñu dab ba président yabaloon ñu ñu dem Pire foofit di ëttu Seydi Hadji Malick ku ne xam na ni piir ëtt la ci biir kër Seydi Hadji Malick ku ne xam na ni Tafsir abdu Cissé bi taxawal kër googu moo àndoon ak magam tafsir Abdou Birane Cissé ñu jëm gànnaar di jàngi ba Mamor Anta Sali gisee leer ga mu gis ca tafsir Abdou Cissé mu digal tafsir Abdou Birane Cissé ni ko kii de boo ko yóbbee gànnaar dinañ ko fa téye magam jël ko jébbal ko Seydi Hadji Malick Sy mu yóbbu ko Pire mu taxaw fa taxawaay bu rafet liggéey fa liggéey bu rafet ba kii di xalifaam bàyyee ko fi di Serigne Mansour Cissé fanwe 1960 ba léegi gis nañ ni moo doon taxawu gàmmu ga foofu ma wax sànq ci bi ma président yabalee foofu ni hasard amul ku doon taxawu gàmmu ba yàlla moom la ci gàmmu njort mën naa gën a rafet ci sag dem ma ànd ak yow bu baax euh, Serigne Moustapha d'accord ak yow tamit bu baax ci ber bi yàlla ber yonant bi alayhi salaatu wasalaam dafa am ci biir réunion nationale bi ñu doon def ngir waajal gàmmu gi ñuy waxtaan ba yegg ci may fàttali góor gu baax gu nekkoon fii Tiwaawan daan jël way Seydi Aji malik si di ko fàttali daan ànd tamit ak kilifa yu baax yi mën nañ ci lim ku mel ni Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di ànd ak moom muy Alaaji Mbay Donde Mbay mu nekk koo xamante ni dama ko sob waaye damay gëstu ay bindam di déglu tamit ay wayam ma dégg ci wayu taraxaa boobu particularité bi muy indi ak ber bi nga xamante ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam sans borom ber nag ko mu ciy nettali su ma juumul yaakaar naa ci sóoratu saafaat la nekk muy garaat yi yàlla takkal yonent yu bari muy fàttali ni ko yaa takkal yonent yàlla noox garaat yow dong noox dong kenn fekkewul nga takkal yonent yàlla ibrahima garaat kenn fekkewul yow dong yonent yàlla ibrahima dong nga takkal yonent yàlla Muusa ak Haaruna garaat yow dong Muusa dong Haaruna dong nga takkal yonent yàlla Iliyaasin grade kenn fekkewul yow dong Iliyaasin dong ci saar boobu mu tudd léegi yàlla di ci wax nii salaamun ala nuuhin fil alamina salaamun ala ibrahim salaamun ala muusa wa haarun salaamun ala Iliyaasin mu ni ko waaye bi nga yegsee ci seydinaa Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci ber gi mu ko ber dafa woo ay quartier woo ay généraux am woo ay officier ni leen nay dëbbe ngeen di aw moo tax moo tax boo demee ci sóoratu laxzab yàlla daf koy wax da yàlla moo ca nan inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha allazina amano sallu alayhi wa sallimu taslima kon ki yàlla ak ay malaykam julli ci moom ni yéen nit ñi julli leen ci moom buñ ko wooteelee gàmmu war na moo tax Seydi Aji Malick si yàlla nañu ko yàlla fayal woykat ba da caa teg ni góor googu kenn du moom jëfal nga yàlla sa boroom wax nga yoneen lu ñépp yéem kon Seydi Aji Malik Si radiyallahu taala seen jàngale ak seen gis-gis bu sore ak seen xikma moo waral lii tey ndax dañoo feeñ ci jamono bu jafe waaye seen gis-gis ak ni ñu mënee organiser àdduna ñu jël gàmmu transformer ko en université di ci jàngalewaat jikko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak doxalinam di dimbali taalibe yi ñuy ñëw di ci am bind yu tooy léegi rek amat naa bind bu tooy bi ñu nekkee ci réception bi dama ñëw di waxtaan ak euh, Serigne Mouhamadou Mansour ci benn hadis ma laaj ko ngir mu leeral ma mu leeral ma ko ba noppi waaye jàngalaat ma beneen jàngal ci leeral bi dal ni oustaz Pape Makhtar Kébé ana nga docteur ni ko maa ngi nii mu woo docteur mu ñëw mu ni ko lii de la ma ministre doon laaj ma leeral ko ko ndax noonu la demee ndax doo mottali wala ndax doo ma ci euh, gën a leeral oustaz Pape matar jaar fa mu jaaroon muy leçon wu humilité kon li ñu soxal Sénégal soxal ko ndaw ñi te dëppoo ak thème bi ngeen retenir ren ci gàmmu gi vers la guidance du prophète c'est vers la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous orientons les générations futures njàngale yu mel noonu ak daje yu mel nii ku nekk war nga ñëw lu mu néew néew néew nga jéem a góorlu ba def tuuti recherche partagé ko ak nit ñi boo gagee ñu gàgganti la lii ma wax léegi jubluwuma ci lenn lu dul wax ci seen kanam ngir bu ma gàggee ngeen gàgganti ma te thème yi bu ñëwee diggante nit ñi dañ ciy waxtaan ci daayira yi dañ ciy waxtaan bu ñu ñëwee ci cérémonie officielle bi waxtaan ci bu ñuy waajal thème bi sax dañ ciy waxtaan léegi maa ngi dégg sëñ Hamid bi muy intervenir ci thème bi traduire ko noo xam ni wuute na ak man bi ma ciy waxtaan ak sama seete religieux ni ko déggee bi mu koy traduire moom ci olof bi ñu ko yónnee ci français daf ko traduire nii ci njubug yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la ñuy toqee ak nammee ndaw ñi ma ni ko waaw sëriñ man de noonu nga ko déggee neneen sax laa ko déggee woon man ni ma ko déggee woon mooy ci wommatu yonent bi aley salaatu wasalaam ñu nekk di ci werante di ci werante di ci werante lu ne ñu dugg ci rek ba mujj d'accord ma ne ko léegi d'accord naa sa domaine la <laughs> ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyuwaale tamit këru kilifa diine yi fi teew ak boroom xam-xam yi bi may introduire léegi maa ngi leen di gis di leen tàllal loxo di wax ni pour jeexal te bañ a guddal ndax waxtu wi gàtt na président de la république son excellence Macky Sall diirub mu nekk fii ci bopp réew mi ku ne xam na ni kër diine daf ko soxal démb ca kaw Kaolack dafa am ci benn kër diine bu ñu dugg kenn ci porte parole yi am lu mu wax lu am solo mu ni ko booy dimbali diine naka ngay def danga leen di tabaxal fu ñuy jaamoo yàlla da nga leen di tabaxal kër gan fu ñuy recevoir da ngay xool ña nekk ca biir communauté bi nga xool noo leen di jàppale ci seen liggéey waaye noo leen di jàppale ci recrutement mu ni ko fànn buñ ci xool rek ci tabax ci wàllu dëkk yi ci jàmbal ci jàppale ci ni ñu war a wutee xam-xam ak ci niñ leen war a sax accompagner ba bu ñuy dem bitim réew ñu amee ko gënin gi rafeti amin loolu yëpp yaa ngi ci kon président ku ne xam na fi mu teg diine te ku nekk xam na diine rôle bi muy joué ci Sénégal dafa am ay menaces yu am yu jëm ci ñun ni ñu xamee islam muy islam confrérique am ñuy toog di ŋaññi këru diine yi di ŋaññi ñi ko sos démb bi ñu demee Kaolack ci benn waxtaan may fàttali ni këru diine yi ñi ko sos ak ñi koy doxal tey yore ndono yi puso bi réerul ci seen loxo ñu yore ko yorin wu rafet ba tey liñ fi gis nii di ko firndeel bu bu ñu amul woon Sénégal kon lislaam fii mu toll nii tey du fi toll te bu ñu amul woon Sénégal ni ñuy téyee diine ak ni ñuy taxawoo diine ak jàmm ji am suñu diggante ak compréhension bi ñu ko amee du fi kooku duñ ko mën a dundee noonu kon devoir la ci état mais devoir la ci sénégalais bu nekk nga défendre sa gëm-gëm ci xam-xam mais nga défendre ko aussi ci dogu ak ci taxaw kon këru diine yi damay profité waat ci yónni bi ñu président de la république yónni fii pour di leen di wax jërëjëf te fi ngeen nekk foofu la. président nag sëriñ bi dafa am ñaari mbir yu mu def yoo xam ni ku liggéeyul diin ku liggéeyulul diine doo ko def ma mën ci citer ñaar dafa instituer grand prix international. du président de la République pour le récital du Coran récemment la ko institué ndax fonk gu mu fonk téere yàlla bi ak fonk bu mu fonk diine waaye dafa am beneen cadeau bu mu indilaat réew mi fan yi weesu dafa dem Makka bi mu euh, Arabie Saoudite bi mu demee Arabie Saoudite dem Medinatul a fekk nañ fa son excellence ba tàyyi umra muy euh, excellence Cheikh Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Dabakh bi mu demee ci musée wu yonant bi aley salaatu wasalaam gis lañ fa def gis nañ fay gindikoo ci jaar-jaaru yonant bi ak même instrument yu mu doon utiliser ñu exposé ko foofu président ni lii bëggal naa ko sama réew bëggal naa ko senegal mu dem wax mu dem waxtaan ci ak buur bi buur bi nangul ko ko boole ko ak université bële ca Caire di Al Azhar ni leen yéen yéenay maître d'ouvrage délégué bi donc le royaume d'Arabie saoudite dafa jël benn professeur Zawjat fan yi sax mi ngi fi ànd ak délégation démb ci la premier conteneur yi egsi ba ñu génne ko te tàmbali nañ musée bi te président daf ma wax ni ma loolu moom sa sasu bopp la avant février bëgg naa ko inaugurer kon loolu moo doon message bi loolu lañ bëggoon partager ak yéen di ñaan sëriñ bi ñaanal senegal yàlla saxal fi jàmm yàlla def ci nawet bi mu barkeel ginnaaw bi ñu ñorlee yàlla def sutura ci senegal yàlla def ni seen waajur wu baax wi yéen ñaar daan ko ñaanee fii ci senegal yàlla na yàlla tàppe xol yi mu am nag lu may tëjee bi yoon ci sama yalwaanuk bopp di ñaan ngeen ñaanal son excellence président de la république Macky Sall